tay moom anniversaire bi dara du doy de. Ma, ngi dal Tak ko ndank sax même ba tek nga sa wañ bi. tëju ma mako de dama ko delo rek soxna bator neeku fi di. dama ko delo rek soxna bator neeku fi di. kanam du kasso waye koku tëjal mu xam ko. eh ku duggu ci kër ku ne ci kër nga jóge. man nag fu ko dem. Bon appétit. maar lan la. yow Fanta Seydi yaa bon yow Alima nit nga yow yaa mën a fen bu dul yow kan la kon yow daa nekk te li may siñ yëpp bëggoo ma yàqamti woo lu dul ma war la ginnaaw nga jël paaka jam ma ko yow yow ku bon nga. moom laa dénkoon sama waañ soxna Batoor nekku fi avant may dem sangu laa ñam soos bi dara nekku ci te ci diggante bi Fanta di kese moo duggaat ci waañ bi. Eh, am na luy lëndëm ci mbir mi de Fanta. gis nga kii ngay gis xaal la daa vett ci kaw xonk ci biir li muy woote sama diggante ak moom dara du ci dëkk. mu dul yow kan la kon yow daa nekk te li nga may siñ yëpp bëggoo ko. fan la nekkoon da ma fi nekkoon de ñu jiiñ ma ko yàlla buy defar day ma ni ko yàq. loolu de ma sauvé. paaka bi lay rendi sa waaye koy daas jox sa noonu fanta sëy di tey bu fekkee woon fu ñu may reyee du woote wàllu.